dëkkuwaay Tileno euh, fii ci Ndakaaru la ñuy des rawatina ci Médina am na benn quartier euh, boo xam ne xañ na ñu ngi dégg tur bi xamuñu euh, fu mu saanoo soxna Astou Diouf saar lañ ci àndal soxna Astou maa ngi lay nuyu ci suba si tey fan la ñuy ànd ak ci Médina. la di euh, nuyu ñi nga bokkal plateau bi di nuyu itam euh, suñu mbokk téléspectateur yi ñuy seetaan te nag ci seen biir rubrique de quoi est-il le ñu ngi fii ci Médina Médina ñu ñëw ci benn quartier bu tudd Jekko quartier bi nag bokk na si li ñuy woowee fukki penc yi ak ñaar ñu fas yéene fi ñëw waxtaan ak askan ñu fi fekk laaj leen ndax xam nañ tur wi di Jekko fan la jóge ak lan moo waral quartier bi la ñu tuddee ko noonu léegi léegi lay doon ci biir de quoi est-il le salaamaaleykum papa. salaam wa rahmatullah. ñu fekk la fii ci Medina ci quartier Jekko ñu bëggoon a xam rek ndax xam xam nga quartier bi lan moo waral ñu tuddee ko noonu. waaw man nag euh, ñëw naa fi depuis quatre-vingt euh, mais nag euh, cosaan bi daal li tax ñu tuddee ko loolu man xaw ma ñu wéyandi ak ba tey salaamaaleykum sëñ bi naka nga def. salaam ñu fekk la fii ci quartier bi di jékko ci biir Medina ñu bëggoon xam ndax xam nga lu tax quartier bi la ñu tuddee ko noonu. ah bilaay yàgg naa fi nag mais mosuma xam quartier bi waaw nan la tudd mais jékko rek laa dégg daal mag ñi di ko wax waaw xam naa xëy na boo laajee paa yi moom dinañ si expliquer wax loolu leer waaw. jërëjëf. salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi naka sant bu baax a ñu fekk la fii si Jekko ñu bëggoon xam lan moo waral fii ñu tuddee ko noonu. waaw mais tamit turu Jekko moom ñun moom dañoo juddu moom fekk fi tur bi quoi moo tax waaw loolu moo tax waaw ñun moom fekk fi tur bi quoi. te laajte woo leen seen parents yi itam. non non wax dëgg yàlla moom laajte ñu parents yi. mu ngi noonu gannaaw ba ñu waxtaanee askan wi fi fekk dañuy dem seeti sunu papa El Hadji Ndiouga Niang moom nag délégué la fii ci quartier bi di Jekko Penc ñu fas yéene waxtaan ak ñoom mu leeralal ñu dëgg-dëgg lan ma waral quartier bi le ñu tiddee ko Jekko. salaamaaleykum papa nuyu la. Euh, maaleykum salaam wa ñu fekk la fii ci Médina ci quartier bu ñuy woowee Jekko ñu bëggoon a xam rek dëgg-dëgg lan moo waral quartier bi la ñu tuddee ko noonu. ñu ngi dëkkoon en ville au plateau fa nu dëkkoon ci plateau nag xam ngeen ne banque centrale BCEAO xam BCEAO boo ko xoolee dafa nekk benn tund en hauteur donc ñu ñëpp la nekkoon. suñuy maam ak suñuy maamati maam des ce fait bu taxee foofu day dominer géej gi bu napp jotee xam ne jën yaa ngi ñëw eh, mag ñi ne taxaw foofu gis leen ñu ñëw di yegsi ñu jël seen mbaal mbaal à partir de ce moment nag ñu ne ah fii de jekkoo nañ ko lu loolu mooy indi le nom de jekko eh, tubaab bi nag ñoo bëggnoo indi fii à la Médina parce que la Médina a été créée en 1914 ce qui veut dire que jekko bi existé woon au niveau du Dakar Plateau mu nga fa ba léegi ñi ñëw nag ñoo indiwaal tur wi mu tudd jekko population bu jógee Dakar palaato ñoo ñëw Médina àndaale tur bi. excepté deux ou trois famille yoo xam ne qui sont restées là parce que tubaab bi daf ñu gëmloo ne y la peste te ñun ñi jàng tuuti bu nu xoolee ba xool bu fekkoon réalité la ñooy ñooy atteindre peste d'abord parce que sont restés là muy la famille Mbeng et la famille Diagne. Anta lu Diouf et Abdou Karim Bourgi. ñoo ko déggandoo mu mel ni leer na suñu papa yi fii taxaw expliqué nañu ba mu leer lan moo waral quartier bi leen nekk ci biir Médina ñu tuddee ko Jekko lii lañ leen indiloon tey ci seen biir rubrique de quoi est-il nom di leen jox dig daje beneen yoon incha allah. incha allah merci beaucoup soxna Astou euh, Diouf Sarr euh, alaaji Malick euh, bon man moom bu ma déggee jekko rek sama xel day dem ci du Diagne jekko mi nga xam ne moo jiite <laughs> woon amateur de lutte man falaa ma njëkk a déggee tur bi en tout cas. waaw moom mooy président amateur de lutte ñu koy nuyu. Mm. d'ailleurs bi nga xamee ni Mortala mi ngi wut ay personnes ressources. Mm. ci moom la xelam njëkk a dem. Mm-hmm. bi mu demee ci xelam mu orienté ko ci suñu paa yu baax yooyu. Mm-hmm. ñu baaxee ñu xam-xam boobu nga xam ne maam la woon ba suñu yoon yàllay tey Jekko aussi ku ko wax wax équipe bi nga xam ne moom moo fa mm-hmm. nekk mm-hmm. ASC Jekko donc mu nekk un quartier bu nga xam ne bu yàgg la mm-hmm. euh, bokk ci Médina bokk également ci quartier yi nga xam ne ñoom ñoo jur yeneen quartier yu bëri yu ëmb euh, dëkk bi di Médina yow yow euh, Cheikh Tidiane man ak yow a yem wala ah, boobu. <laughs> ñoo ci yem Mm. tuddati ah, astu ak suñu papa ji yi nga xam ne ni eh, ñooñu yokk xam-xam. Mm, Chérif xam nga jekko woon jekko bi ñu jekko woon jën yi nag ba doon sànni mbaal yi muy ñëw. Mm. looloo amatul ndax jën fi mu ne nii moom. waaw euh, <laughs> boobu boo sànnee mbaal. jekko naata lu bari ngay am. <laughs> ce n'est plus le cas malheureusement. wax nañ ko waaw baax na. président sa micro bi sa micro bi daa fay en plus. Ah. Mm. jekko suba bi mm. en tout cas en tout cas il a rendu célèbre le quartier. parce ah que bu fekkee oui ah ba bu fekkente ni ñu bëri xañ na moom moo tax ñu xam euh, quartier boobu la ah. xamuñu woon origine bi. Euh, merci soxna Astou Diouf Sarr ak euh, tamit suñu papa yooyu ci leeral li ñu indi ci origine.